asalaamaaleykum wa Sénégal ñu nekk ci dëkk bi ak ñu nekk si diaspora bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tour ak sa sant man elage Diouf man maa ñëwoon rek di lancer waat benn appel un message aux internationaux AIFS Amical des internationaux de football sénégalais euh, di leen wax ni euh, ñi koy yëgat ñi koy yëgul yëpp ñëw leen l'amical est là ñoo ngi doogay pare benn réunion bu ñu defoon réunion de de bureau bureau bi yëpp dajé nañ fi ku nek jóge na ci région am ñew ñu daje fii euh, les ambassades waxtaan pour lu jëmele football du Sénégal kanam at lu jëmele aussi internationaux yi kanam ndax ñu bëri xam nañ ni li ñuy jankantel par exemple mu ci ben rek ay internationaux yu nga xamni dañuy dem stade ñu leen di téye té loolu lépp lu ko waraloon moy manque d'organisation et aujourd'hui ki nek à la tête moi, le président Chersek et man premier vice-président chargé de l'intérim nous ngi tous les internationaux venez nombreux parce que mbolo moy donner et on doit soutenir nos jeunes frères nous nga nous ci leen parce que def et nous yoyu euh, ñoo ngi parce que man mooy li wax rek euh, bu bu ken xalat bopam rek ndax tay di am na ay yu si tollu et ils ont besoin de nous nous dañuy organiser wu nek ben ñeu jappalé len et le seul mot d'ordre c'est d'aller gagner la CAN au Cameroun et inshallah, bu nu bokko nek ben dinañ ko mën def wasalaam.